asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen nuyu di leen sargal Aba di la ziar ak ñi nekk ci plateau bi yëpp yëpp ñu ngi leen di ziar di wax ni nag tey maa ngi ci tefesu Yoff ànd ak mool yi parce que nag Youssou Ndour da leen woy woy wu rëy ci arena gis Pape Moussa def euh, euh, ànd ak équipe am ñu sol ay équipement wu mool papa noo def. Euh, sant yàlla baax a baax a baax. affaire yi ah affaire yi mi ngi neex de. lépp jàmm lépp xam nga tey jii. ci kanam tuuti rek. Youssou Ndour dafa war a dafa war a joué. Ah, loolu dana ma neex lool lool ndax parce que Youssou Ndour jege ma séeréer béy kaa jege ma. ah booba booba xale bu góor laa. ah ay ayoo ceele yooyu. ak pex mu neex mi ci biir géej yooyu xam nga yooyu Youssou Ndour moom vraiment moom moom moom moom sama woykat la woon moom rek laa daa déglu. Mm-hmm. moo tax xam nga tey moo lee ma woo ne ma il faut ñu wax ci Youssou Ndour lu rëy lim leen way ca arena mu war ko mu war a làbbali nag ndax tey jii si samedi bi dafa war a tëgg fii ci place de souvenir yow baa di nga ñëw. waaw loolu dana ma neex ndax ah, loolu sama sama doom loolu waaw loolu ah, loolu nga yëngatu ah ah baax joxe ay pas waaw ah, na ma loolu mooy sa son way bi la gën a neex ci wayam yëpp eh, ci wayam yëpp séeri boy ma eh, ñamal ma ci tuuti pourquoi awaa nanu ñamal ma jege ma séeri boy kaay jege ma ayo celi neex na ayo celi sama celi naaw na ayo celi sama celi naaw na tant que yaayu mool yi en tant que say doom tey ban kontaan ci am ak lan nga mën a wax Youssou Ndour ci wayu wayu mool dama ci kontaan bég si ndax sama doom day nuur ab annonceur la waaw jàppale nit ñi rek Youssou Ndour moom man wax dëgg yàlla waay la moom. ban waay moo la ci gën a neex waayam yu yàgg yi rétro yi. waayam yu yàgg yi xanaa. moo li dem na géej. moo li dem na géej. waaw ni mu ko wayee neex na la. neex na ma trop sax. Hmm. waaw waaw trop. mais tey di nga ñëw fële. billaay dinaa ñëw biso hmm. biso bi sëñ Ba. kon tey il faut ñu séddale leen béy gaaw. yàlla yoon tabax. bu ngeen daal di ñëw place de maa nga ci biir man maa ci biir. nee naa la maa ngi ci biir euh, géej gi. géeju yoof bi ànd ak mool yi nga xam ne dañoo am jom am engagement di teel a xëy di guddee wàcc ñoom nag tey ñu woo ma pour ma ñëw ci wàccaayu soirée bi nga xam ne moo war am léegi léegi ci kanam ba tax na dañuy kontaan ndax neneen leen Youssou Ndour way leen Youssou Ndour bàkk foofu ca arena dañ ko bëggaat làbbali foofu nga xamante ni mooy euh, place de souvenir ñoom nag takku ne na takku naanaa ci kanam tuuti dañuy ñëw foofu bu ko defee ñu daal di pelloo ci lool ah, jóge naa ci gaal gu ndaw yéeg ci gaal gu mag gi nga xamante ni ñoom tey jii ci si samedi bi dañoo itam bi di wàcc euh, soirée bi mat santek euh, nekk ak nga xamante ni ndaanaan la moom itamit ci biir gaal gi maa ngi lay ziar mon frère. waaw ah, ñu ngi delloo ziar bu wér. ba yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. mais tey lu ma tey ma war a yéeg seen gaal gi waaj lan ngeen di waaj. ñu ngi waajal soirée su Ndour bi. Mhm. koroog ñëwoon neen mais dafa xat ba mënu ñoo dugg. Mhm. ñu ngi koy remercier ndax ci ticket am na solo daal. am na solo changement bi waaw. yow TFM nga ko changé wala cosaan nga changé sa ticket. TFM laa ko changé TFM nga dem ñu changé la. ñu changé ma sama billet. sunu mbër bi tamit ci biir gaal gi. Siteu ah mbër mu mag bi macha allah da ngay napp. waaw damay napp de. dafa mel ci ci loolu ngay defee entraînement yi de ci napp bi xëcc bi xam nga dafa laaj ci doole ak condition. waaw dafa laaj doole ak condition ak fulla ak fayda si la ñuy yëngu quoi. Mhm. waaw ndax dëgg moom it ngay def time is money ci samedi bi ngeen di wàcc soirée bi. waaw samedi bi ñu ngi koy waaj ba mu bari doole ndax soirée bi bi passé neex na ba wàcc na ba zéro ndax yu moom gor la waaw parce que maanaam ñi jëndoon ticket dugg ñu ñoom ñëpp nee na leen kaale ma remboursé leen seen i ticket loolu nag dañ ko siy ndugal di ko sant bu baax a baax waaw. kon kanam léegi léegi da nga war dem place de souvenir. waaw si kanam dañuy dem teer léegi jàpp jën yi dem foofu sol baas yi. waaw yóbbaale jën yi ruube foofu waaw. kon da ngeen a yóbbaale jën kon tey Youssou Ndour la nar waaw. waaw bu dee rek pepes yow yow yow nga réer fiiril nooyin moo frère maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay koole ba ngi si jàmm. maa ngi sant kay. tey kontaan nañ ci accueillir bi ñu accueillir. waaw ñoo gën a kontaan parce que Youssou Ndour keroog arena bi amoutage mm-hmm. dafa andi. Mm-hmm. di moromu du moroomu gars yi. Mm-hmm. inspiration wax gars yi fu ñuy woyee bokkul. toj na arena bi embouteillage am na ñoom te am nañ deux heures de si yoon bi mënuñu ñëw man su ñooñu laa bokk sama ticket dafa mujjee niil par la suite nag damay dem TFM pour ñu changer ma ka parce que tey jii soirée dama ko war a toj. dama ko war a xar. mais il war a def chorégraphie yéen lépp yéen a ko war a def direct da ngeen naan Pape toog. may ñu. moo ñoo ko dàq yëngal. te bu ñu yëngalee parce que Youssou Ndour dañ ñu way moom mm-hmm. man maay capitaine gaal gi. Mm-hmm. bu ma dóoree jën yi moo lépp ku sene maa la sa ticket nga dem. loolu day neex waaw loolu moom day yëngu quoi. ñun balaa ñuy dem ci pro da ngeen may avant gu ñu yëngal gaal gi ba mu yëngu. way nga moole. ino mola wayla baltama ino yosanora ino wayinga mole ino moli wayla ino yosanora ino